basuma basuma mbare suko non ko abide ba la ja na fi koy fokk mo ñew ñu waxtaan askanu senegal fi ci oreille du monde ndax fi lay waxante magu senegal yi ndeysaan aduna buki bu ko waxam waxambaane bu yebee buki te doxine wala ma gis te yéen ñëpp jaaxle am mag yu may yónnee vidéo camerounais boobu ñu naan Franklin Nyamsi senegal foog bu leen partager vidéo parce que tant que nga ni partager vidéo am dafay mel comme moom africain la comme ñun te moom panafricain la yéen langu nasaran yag na len wax ci live moy lang bo xamne li Cheikh Anta Diop waxon lim len ni wax ci français nonu bes bo len ko traduire en wolof ngeen duma ko ngeen toj lu bonam xamna lu may wax li Cheikh Anta Diop ne langu nasaran lang la bu jublu nit ñi naxé sen askan Motok tax tubaab dugal ko fa ne leen moom ngeen di jàng école ku ko jàngul Gur. tam ngeen bëgg ko gëm gor bu demee bay rapapapi lu ne mu wax lu ñor mu wax lu ñorul mu wax ngeen bëgg ko jox xorom déedéet parce que jigéen ñaa ëpp ci àdduna moo tax léegi góor bu jigéen say wax day fës say wax day siw góor buy gérer ay détails say wax day siw góor bu gérer wul détail nag est-ce que Assimi Goïta dégg ngeen ko muy bëri wax est-ce que ñiy liggéey dëgg dégg nga leen ñuy bëri wax est-ce que ñiy liggéey dëgg dégg nga leen ñuy bari wax est-ce que dégg nga leen ñuy bëri wax waaw wala déet est-ce deug nga len ñuy bëri wax motax aduna nak da am fu muy toll yeen Sénégal fa ngeen réfléchir so fi ñu la pan africain moy ñi nga fi ñom fi lañu si mom juddoo fi Cameroun la juddoo jangé fi ñëw mais nationalité nasaran la am maanaam la ah grosso modo Ousmane Sonko sénégalais mo démon Mali seeti Assimi goyta Franklin ñam si français du Camerounais c'est un Français moo dem Mali ne mom, maanaam mom dal bu ñëwee teeru bi ñu doon préparer teeru Ousmane Sonko la am xaalis bu doy sa bu génnoon pour mom mu daw dem defi sabotage ban genre sabotage organiser peuple malien fay xaalis pour ñu génn saboter Ousmane Sonko far yalla nattu au niveau des consulats et tout au niveau des consulats et tout je signe je persiste Ousmane Sonko day dem Mali ken yogu ko ñu ne waaw man teel naa ko yëg ñu ne kan ñu ne mardi Franklin ñam ci ci bopam ci groupe panafricanisme mu ne mardi day nek Mali ma fokk day kap effectivement mardi ñëw na Mali wante nak li fa fekkul Sonko c'est que mom moromante bi mu bëgg a ak Ousmane Sonko ñun ñoko warul may ndax tant ñu ngi ak mom dañ koy may ci moromante bi te damay gi Sénégalais yëpp nga bëgg ko tontu déedéet ñun tay Ousmane Sonko tay buñ koy tontonteel lan la ko Sénégal mayga waxal premier ministre Mali lan la wax ci deru Ousmane Sonko tay man lolu moma ñor mais pas Franklin Nyamsi si Tembesil la ce Camerounais la peuple camerounais bo ñëw fi France ñom duñu ñu bokk manifestation amuñu leen neex amuñu leen nakari tubab lañ fi nekkal fi Camerounais sont là pour les blanches les Camerounaises da ngay gis ko am jëkkëram tubaab la ñuy sëyal Camerounais amuñu ci kerse ils ne sont pas avec nous le peuple africain moom il est l'un des sept leen Camerounais nekk fa der bu ñuul dafa yomb boo dundul comme ñoom nekk nga der bu ñuul ndax mooy peuple bi gën a complexé dans le monde je commence à comprendre les Camerounais c'est le peuple le plus taré de l'Europe waxantuwuma génn leen manifestation ngeen xam nag da nga fay fekk kuy réclamer pour bien amul mais du daami xaraam ji mel na ñam si nag mooy ñëw ñuy tontonteeg moom léegi daal ñam si président la Ousmane Sonko président la déedéet ñam si na def comme Kémi Séba ñun Sénégal fokk ngeen bayyi nak sen bop surtout yeen yeen ndaw ñi Kémi Séba mënul nek seen référence France la juddo bés buma yobbo yóbboo Kémi Séba Sénégal Casamance mu sawti wéyam Kémi Sénégal France juddo natal Yamb à 60 ans gis ngeen lu ko neex lay sol su fessek lepp lay sol ñun suñu ba bu jub bu doon africain da ko sañ mais africain la africain moy lan ñi nga xam dañoo yàgg Europe ba amatuñu ay origine dañu pet seen racine man ñooñu mun ñu nekk sama exemple moo tax man bi ma leen ne prip ma ne leen Sonko Pastef mooy parti PA yi bu masmin Diop dem leen samay laay fàttaliku mos naa leen ko wax. Sonko révolutionnaire la encore une fois du activiste ñëwul pour man politicien biñ bi bañ koy jëññi gis nga bés boo ko jiiñee politicien rek gis wax waxeen bés boo ko jiiñee politicien gis var mais la révolution qu'est-ce que c'est une révolution moi je suis dans la révolution moo tax ma ne leen mënuma bokk ak benn lifer page wala dara man ci révolution une révolution. man révolution la nek té ragaluma sama révolution jaral na ma sango suuf mais sama révolution kenn ne ko personne sur terre ba taxna la jeunesse foog ngeen réfléchir aat xam fu ngeen di teg seen xam nu ngeen ni xexé xam ñan ña ngeen tontu dem leen discours premier ministre bi wër discours discours Moi, je pense que conseil est laa Salut. Moi, je pense que le seul conseil bu ma leen mën a paas loolu dem leen déglu discours Sologa Mayga moo gën le discours Franklin ñam si ndax Ousmane Sonko du moromam du màppandoowam boo leen ciy vous nag yéen a xam ndax man du ma ci waxati Franklin ñam si ñun duñu moromam suñu nguur du moromam moom faluñu ko dara amul dëkk double nationalité la man nag du ma wax ak ay binationaux may Maïga nag li mu def rafet na discours bi mu wax si Ousmane Sonko ñun ñëpp moom lañu dégg ndax neexul ba neexul loo ko jiñ tooñ ko moom bi muy falu wala bi muy def si révolution am y avait pas l'AES y avait dani ba moom. Ndeysaan sama frair Baye Fall Ndiaye kontaan naa tey dégg naa dëkk man maam Thierno dégg naa dëgg sama frair Baye Fall Ndiaye dégg naa dëkk dëgg bu wér nga wax waa ji xamul boppam quoi te waa ji du nit. mom bu doon nit wala tay mu amone dretu africain deug deug deug deug amna na neneen noo xam non lay waxe mais du ni mi waxe quoi mais franchement li nga wax moy deug jaratul ben sénégalais di partager ay vidéo kenn partager bu len ko may ben xorom bu len ko may buzz ki jël len ko tégué ko nalé ñam simi mi amuluñ ben solo parce que mom dafa bëgg a ak Ousmane Sonko té Ousmane Sonko du moromam kon li li nopp li ñu noppal ñun sénégalais moy ay vidéo wala ay live am nañ ko sëkk te loolu mooy dëgg merci Baye Fall Ndiaye kontaan naa ci yow trop man su ma la déggee sama xol day sedd parce que franchement neexul ba neexul mais jàmbaar dëgg nga te vrai vrai patriote nga vrai patriote nga yaa ngi bay ci waar bi lu am solo masha allah grand frère maa ngi lay wax ne la ca kaw ca kanam kontaan nañ bu baax a ñun waa loray di Monde TV merci grand frère di ñaan nag vidéo bi ngeen partagé ko te ngeen koy aimé bu baax a baax a baax parce que loolu dinañu gën a yombalal suñu liggéey jërë ngeen jëf gars yi kontaan nañ